activation communication bi c'est plan comme ni ma koy waxaat planification la ak ay stratégie ku mel ni ndakaar mun naa ne am na benn stratégie boo xamante ni démarré démarré nañ ko à travers festival yi ñuy def fii nii chaque année ku mel ni Thiès y a des euh, yoo xamante ni ñu ko def au sein des écoles parce que nous avons l'académie nationale olympique bi nga xamante ni au sein du CNOS ñoom ñu ngi def en fait liggéey bu am solo à travers les écoles amoon na ay partenariats yoo xamante ni signé nañ ko at avec les maires nga xamante ni les euh, les villes hôtes muy Dakar di Diamniadio di Saly et aussi avec le ministère de l'éducation et en même temps le ministère de la jeunesse am na mhm. semaine boo xamante c'était semaine même dédiée spécifiquement euh, pour les Jeux olympiques de la jeunesse donc am na sur le plan de communication aussi comme ni ko nit ñi di xaaree mhm. vous savez euh, les Jeux olympiques de la jeunesse dañ koy def en co-construction avec le CIO mm logo de Dakar est protégé c'est pas n'importe comment lañ a jël rek def activation le directeur de communication du monsieur Abdoulaye Kanouté Kanouté actuellement mi ngi nekk à Paris jóge na Lausanne Suisse actuellement il travaille avec le comité d'organisation bu Paris parce que CIO actuellement seen département yëpp ñu ngi Paris pour préparer en fait le plan de com sur Dakar mmh. boo leen demee ci site Soxna Dakar 2026 bi actuellement nii vous allez voir que dañ ko héberger même sur le site de CIO parce que CIO moom moo am forme communication boo xamante ne à travers les Jeux est-ce que gis ngeen ci benn communication boo xamante ni comme Paris 2024 non non te pourtant il y avait Jeux olympiques de la jeunesse euh, il a même pas un mois c'est la même chose que Dakar 2026 c'est les Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse yi nga xamante ni Corée lañ ko euh, defee ci mois ba le passé d'ailleurs am na euh, le directeur des opérations monsieur Diaw demoon na foofu noonu pour en termes d'immersion donc c'est pour vous dire que la communication des Jeux olympiques de la jeunesse bientôt léegi ñu commencer vraiment le plan de communication bi nga xamante ni population Sénégal bi yëpp dinañu mën a gis euh, que Sénégal day organiser les Jeux mais à travers l'Afrique aussi on travaille avec toutes les CNO actuellement à travers l'ACNOA où la communication ñu ngi koy def foofu mais balaa ngay dugg ci wàllum communication mhm. la première des stratégies c'est de stabiliser le programme sportif le programme sportif avec le CIO et les fédérations internationales qu'on di génn de manière officielle. Mm -hmm. c'est le 30 juin. ça veut dire que le mai bi am na benn réunion bu important muy la commission de programme du CIO si lay valider le programme définitif de Dakar 2026 et bu ñu waxee validation du programme sportif de Dakar 2026. ça englobe le plan de communication ça englobe sur le plan de transport ça englobe sur le plan de euh, lekk daf ça englobe sur le plan de arrivée ak départ mooy li ñuy wax arrivée ak départ pourquoi ma wax la loolu c'est très important parce que tey toute la parti organisation du COJOS tourne autour du programme sportif te le programme sportif boobu ma lay wax noonu mhm. c'est le 30 juin 2024 lañ koy valider